tey ñu ngi ci li nga xamante ne mooy ci banlieue bi bu ñu banlieue bi ne géejawaay mais bu ñu géejawaay ne marché bu bees ñu fekk fi tey nga xamante ne mooy ci arrêt car bi fekk fi ay xale yoo xamante ne ni ci jeunesse réew mi lañ bokk xale yoo xamante ne ay xale engagement am ay détournement ah gëm seen bopp liggéey lañ gëm leen du ñàkk nag des fois yoonu ndaw am ay gàllankoor am ay tolof tolof affaire de jeunesse gone yi yaa ma gën a xam mais ñu bëgg état bi que si bokk jàppal leen tamit ci lu baree baree baree bare maa ngi leen ngi lay fay di la siyaar di delloo siyaar taw ñun moom ñun gaan ñun ay ndaw lañ rek fii ñun ñu fi daje ñëpp boo xoolee gisoo fi kenn ku bee jaaw ñëpp ay xale lañ te kenn ku ci ne boo xëyee foog naa ne heure bi ngay jóg sax pour ñëw fii nii boo moo di daw say waajur wala say kilifa amul kenn ku siy jóg heure boobu yow organise da la taxul a jóg pour heure boobu noonu xamul la tax a jóg da ngay jóg pour ñëw wut si quoi profité wut si mais wut mit jamono ji métti na de métti na ci côté yëpp. fii am na ay apprenti am na ay chauffeur am na ñoo xam ne am nañ yeneen i métier bëri nañ fi mais yenn chauffeur pour ma wax la boog am na fi chauffeur yoo xam ne dañ fiy toog ay weer ay weeri weeri weer liggéey duñ ko xëy def lu ñu lekk dañuy xëy fii la ñuy ñëw di ko takkale te ñu ne ay chauffeur lañ ñii ay ndaw lañ ay apprenti lañ ci oto yi lañ ne moom lañ yaakaar ñenn ñi liggéey ñu ñu ngi xëy chaque jour dañuy xëy toog buñ xëyee lu ñuy wax dañuy ñëw taxaw takkale rogo jeeru ay rogo jeeru lan mooy rogo jeeru saawana imagineel ponkal bu xëy suba teel di taxaw di xaar oto génn oto taxaw yëpp jox la cent franc sa ñëwaat taxaw yebaat oto beneen mu jox ko cent si ay ndaw ko ay nekk si réew war a jariñ réew mi dara war a amal réew mi njëriñ mënuñu am sax nuñ soutenir seen bopp booy soutenir seen i bi kàlla faj seen i besoins yeeg yenn yi des fois da nga fiy gis booy mu toog ak nekk mu jóg def naka sudul noonu dara def loowu ko ko de du ñàkk jomam de man jàppee moo ko ñàkk jom de bu réew mi doxee woon ni mu war a doxee ndaw loolu dina am leneen lu muy xool lu dul di xoole lu jàmm du ma sàcc man du ma fen lijjanti ma koy sàcc mais tey bëri na sax morom yoo xam ne ngëm-ngëm boobu maam ñoom amuñu ko ndax lu tax amuñu ko mooy patient bi la ñu amul mënatuñoo xaar xaar nañ xaar xaar xaar xaar ba xaddi gars yi dig leen dig leen bañ découragé léegi dañuy obligé gis alalu jàmbur taxaw nga ne ko fët dem faji sa soxla yow loolu ngay gis parce fii koo dem di di sa soxla mu gën la dëgër la su ma ñëwoon ne la problème fukki junni la am yow boo moytul nga gën maa dëgër la noo may fajalee nag kuy jooy ni muy naxalee kuy jooy hmm? tamit gars yi nañu geesu bàyyi ñu xel. mais ci ginnaaw loolu am na ay yeneen jafe-jafe yoo xam ne dañ koy dund fii yoo xamante ne yu métti métti parce que tey boo ñu bari dañaan tournal fii booy fi nekk ay defkat def defkat ñaaw téef dañuy def léegi li loolu tamit lan ngeen wax ci loolu parce que dañuy gis doomu adama di ko dëkkal xamante ne foo xam nga baal ma tamit fii moom àdduna la xam nga fii moom àdduna la kenn ku ne yaay xool sa vision nga vision ko fii ñi fi ne ñëpp man mënu ma juger ñëpp sama bopp laa xam nga tey waa ji nii man munu ma waa ji nii du jël waa ji la koy jëlloo ba mu war a jël moom man xaw ma ko la ko sonal moom ba muy dem di jël lu jàmbur xaw ma ko waa man loolu man pour man mais man am na sama ngor am naa sama ngëm-ngëm ne ma xëy liggéeyu du ma sàcc du ma duglu sama yoon nekkul du ma def lu mu warul def dinaa ànd ak sama ngor ma am su ma amul di dinaa ànd ak sama ngor lu ma yàlla jox doyloo naa mais ñëpp dañu mënul bokk yem parce que doomu aadama yi boo xoolee suñu biir nan la baaraam yi mel dañu wutante quoi dañu sudante kon ko waa ni baaraam yi noonu ni ñu sudantee noonu noonu la xelu doomu aadama yi sudantee te yow muñ gi nga mën a am ba doo defit naka sudul noonu man est-ce que naa ko ah, am na noo xam ne bu ko doxee woon tey du ma du ma xool li nga yor ba koy jéem a jëli ah mais bu doxee ne ne ni tamit des fois ngor du ñëpp ko mën a téye soxla yi mënuñu taxaw nga war ko faj yaay di jooy baay di jooy ah nga war a faj yaay war a faj baay yoroo loo leen fajee bu yàggee di nga def na ko sudul noonu te teguñu la ci dimbali ñi ñi ñu war a dimbali dimbaliwuñu dimbaleewuñu dimbal goo xam ne ñun war nañoo mën a jàppandiku si yooyu noonu même bu dee journée deux mille sax wala journée ñetti téeméer garaawul xeebuñu ko ndax buñ ko reyandee après dinañ mën a dem naxante jiwaat leneen quoi. mais toog jàppoo ci dara defoo dara ku yàggee kat baay faal nga jël loo warul jël wala nga dugg si loo warul dugg ah ñëpp yemuñu de ngor yëpp yemuñu de man sama ngor li moom may xam naa ko mais am na ñoo xam ne leen seen ngor may man xaw ma ko de te sam bopp nag laay gën a xam que doomu aadama yi chaque jour damay jàng si ñoom nag waaw chaque jour maa ngi jàng ci samay morom maa ngi xool ki ma ëppale maa ngi xool ci man ki ma tane maa ngi xool ki nga xam ne man moom moo ma tane man damay bàyyi loolu sama àdduna xel xam naa ne yàlla xëyul xëy may ñu ñun ñëpp mais comme ni ñuy xëy ni di jàpp jaayante kii xëy jàpp fii kii jàpp fii ah comme léegi mi léegi loola fi am kay dañuy dugg si lool la ndaxante xool nu nu gaay di dimbale ñi ñu war a dimbali war ñu yërëm te yilif ñu doon suñuy njiitu dëkk ah geesu ndaw yi réew mi te xam ne ndaw yi réew mi tamit sonn noonu de buñ àggul ci lool gi ñu ngi cee sonn moom def nañ ko xaw ma nag danoo àggagul ca lool nga moom waaye lool moom am na ñoo xam ne sax àgg nañ ci <laughs> waaw <laughs> am na ñoo xam ne ànd na àgg nañ ci sonn lool <laughs> ah na ci ñoo xam ne àgg nañ ci sonn lool ah waaw doon na ne sonn gunu lool sax mais am na ñoo xam ne àgg nañ ci sonn lool de nan nu geesu dimbali ñu teg ñu ci dimbali ñu nañu dimbali dimbali du càgg ne non booy yi fii kenn président feegul kenn mu toog mu jox ñu xaalis xam nañ loolu. xam nañ fi ñu war a jaar ba dimbali noonu nañ jaar foofu noonu dimbali ñu ñu am suñu jàpp bàyyi taxawaalu bi violence bi gën a wàññeeku si réew mi mais tamit bu gaay amul fu ñu jàpp moom réew mi day rëpp a joo rek. loolu moom kenn du ko dindi. dëgg mais mais mais jamono ji ñu gis li nga xamante ne mooy ministre bi distribué ay li nga xamante ne mooy ay càq-càq di ko jàppale si côté jeunesse bi yéen seen côté fii alors est-ce que pare ngeen pour ministre bi ñoo jàppale man chauffeur man damaa lang ci oto yi ba jënd moto jëndal sama bopp moto boobu sama moto boobu dégg nga ma ba jëndal sama bopp sama moto boobu yàlla moo def ay ndogal dal ma si ma soge ci lii sog la moto ma ko def moo tax ma gën koo bëgg tey. ci càq-càq yi la ma dale ba léegi damay càq-càq mais toog na ay weer nag yoratuma mëda mais ministre bi ndimbal moom muy wax noonu ah maa ngi koy dégg yàgg naa ko dégg mais dégg bi pour man dafa am boycotté xaw ma nu mu demee noonu parce que ñun ñun ñun ñun man man man dama part personnel man xam naa ne man ku yàgg si càq-càq la foog naa ne bi muy doog a génn fii ci Ndakaaru bokk naa si ñi ko fi def te jàng yàlla dañoo dimbali sax ba jàngewuñu woon fii dawal ñun àll ba lañ jàngee dawal ñëw ak moom fii di naxante mais tamit cag-cag yooyu noonu buñ ci jaabalee gars yi jaarale ko si comme niñ ko war a ko quoi pour man ndaw yu bëri nañ dem seen yoon. ñu gis li nga xamante ne mooy prison bi booy yi ñu ngi jooy wàllu ah métti métti métti goo xamante ni jamono ji boo yëpp gi ngi jooy wàllu. amaana xam nga booy bu fa nekk amaana xam nga sa xarit bu fa nekk. waaye nañu biir jeel sama gaa nañu nii nii di tëdd deux yoo xam ne deful waxul yëgul tinul. Eh, lan la. deful yëgul waxul tinul toog la def si arrêt bi comme ñu toog nii di toog suñu toog xamul nuñ demee yow nga ñëw ñu jël sa alal ngay sipsane ma xaw ma sipsion la xaw ma en la xaw ma nu mu demee nga ñëw ne ma man ñi jël sa alal maa ñoom ñoo ànd. kërëb kërëb ñu jàpp ma si yóbbu ma si yoon yoon jàpp ma yóbbu ma kaso ma dem kaso ñu tëj ma ci deux ans yoo xam ne comme bonjour yooyu tamit bu fi jógut kaso bi du jóg ci fees nañ bàyyi tooñante gi gars dañuy tooñ gars yi seen biir di leen yóbbu jeel ci boppam te léegi jeel dafa am dafa doon loo xam ne comme léegi Sénégal nga juddu fi màggee fi ba toll ni nga war toll te demoo jeel si impossible te loolu jaaxal na ma ñun ñoo gën a ndaw dëkk ñun ñoo gën a ndaw dëkk ñoo ëppi kaso Sénégal moo gën a ndaw dëkk am 38 jeel 37 jeel pour lan 37 jeel pour lan ci dëkk bu ndaw bi lan moo ko fi jar tamit boo bëggee jël ndaw ñi yow da ngay dem gars yi nii gaan booy yëpp koo ji wax mun la tribunalu Pikine tribunalu Pikine tribunalu Pikine tribunalu Pikine sàng na suñu gaañ yeeg suñu mbokk yeeg suñu nijaay yeeg suñu baay yëpp da ñëw toog sa toog nekk sa boobu sa Baay Faal nga gis ñu jóge fële ànd ak yow kërëb kërëb wax waxi dafam ñu dem police police war a segg seggaat seggaat mais ñoom benn segg la ñuy segg lu leen réservoir jox moom la ñuy jël yóbbu après nga dem ñu mise à jour bàyyi nga dem dem nga kaso tamit nañ xoolaat ni ñuy yóbboo ndaw yi kaso gaan yàq ndaw yàq avenir ndaw yi nañ xoolaat nuñ koy yàqee loolu yomb na de ñaan ñun ay ndaw lañ ay booyu ndaw liggéey lañ gëm gëm ne yàlla am na te gëm ne mooy maye boole ji gëm ne mooy xañe lum ñu joxul gëm nañ ne waraguñ koo am mais lum ñu joxit xam nañ ne dañ ko dañoo war borom mu jox ñu ko ndax borom bi di jox kenn loo mérité wu. amaana nag xëy na suñu métit gii nii ah daa am lu ñu nar a julal ëllëg waaye tamit buñ sañoon si àdduna balaa ñoo yàllaa jël ñu am ci luñ jafandu ba mën a jëriñ suñuy waajur ñoom ñu am. contentement si ñun même bu ñu amul dara si àdduna sax ñu am suñuy ngërëm waajur ci àdduna ñun tamit sonn nañ de nañu dimbale gaan ci ni ñu war a dimbale ak fi ñu war a dimbale jaar fa gaan dimbale ñu ay ndaw lañ réew na koo wax muy jooy te nag moom buy jooy du nax kuy jooy fii kenn mënul di jooy di nax sax morom ah xam nga ne doo ñëw feek ma mu toog fii di takkale cent nga ñëw di ma ñaan deux cent ma la koy may yoruma la lay wax ma koy di taxale cent nga ñëw di ma ñaan deux cent yoruma bañu ma de dama amul bu ma amoon mën naa la ko jox mais dama amul lu ma lay jox ba la koy jox mooy problème lembi nañu gars yi dimbali am na ay ndaw lañ réew mi soxla nañu te ñun soxla nañ réew mi dañu dimbali bàyyi ñu xel xam na ñun ay doomi askan wi lañ si réew mi lañ bokk li doomi réew mi di dund moom la ñuy dund li ñuy yëg moom la ñuy yëg yor nañ jabar yor nañ doom yor kër mais amuñu liggéey bu baax bu ñu liggéey amuñu bu baax bu liggéey amuñu ko te ñu ñu war a jàppale a ah, dañoo mel ne ñoom ah est-ce que sax ñoom tooguñu di seetaan. dina ñëw. ah man de damaa jàpp ne ñoom dañoo toog di ñu seetaan gàncax wala dañ ñoo fàtte. fàttewuñu leen ngeen bokk. ah ñun suñu bokk ci réew mi des na ko xayma waat de. mooy loolu moo tax ma ñëw jël sama ko dugg si yéen. ah moo daan a ñun nag suñu bokk ci réew mi ñun des na ko càmbaraat. ñun gisaguñ suñ bopp de ma ne ko ñun gisaguñ suñ bopp de xaw na noo sonn de ah baax na kon dina ñëw baax na yàlla